jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la depuis Brooklyn New York gars yi tey dañu ñëw continuer vidéo bi ci kilifa Y'en bi ñu wax ne dañ ko jàpp ci ay trafic de visa démb defal naa leen ci benn vidéo mais tey dama seetaan vidéo yëpp bi nga xam ne sawaay dafa toog ci oto bi moom ak xaritam bi nga xam ne moo ko jam paaka ginnaaw moo ko weeje ma seetaan lépp gis ci ay éléments nouveau kilifa mi nga xam ne moo fi way saay-saay Macky Sall kilifa bi nga xam ne moo nekk Y'en kilifa bi nga xam ne ñoom dañ ne dañu ñëw pour jubbanti Sénégal moo def lii nga xam ne dañ ko jox xaalis mu jël mais nous dañu bëgg xam complot bi ndax dina parce que nous on pensait que on en avait fini avec les complots n'est-ce pas venant orchestrés par le régime Macky Sall parce que on peut imaginer que la personne qui a trahi un qui se dit être son ami de 20 ans est une personne qui travaille seule. Nous pensons que cette personne travaille peut-être pour la l'APR, pour le régime, et donc pour Macky Sall. Vous comprenez Mais il y a des gens qui pensent que tel n'est pas le cas. Il y a des gens qui pensent que on ne peut pas parler de complot. Nous def du affaire bu ci kenn tudd am APR dégg naa Californie mu wax loolu Californie ci benn côté d'accord naa ak moom ci benn côté mais ci benn côté d'accord ma ak moom ma wax leen fan laa d'accord ak Californie ndax Californie moom dafa ne yow munoo woote dëgg ne da ngay xeex dëgg dangay xeex ñu jëlee fi affaire faux passeport parce que Californie moom nee na dégg na ñu wax waxu faux passeport kilifa ba mu déggee ñu wax passeport bu xonq faux daf ci waroon génn ñu jox la xaalis xam nga nga téye loolu daf ci waroon génn Kaliphone foofu la waxee foofu moom d'accord naa ndax kilifa yow bu fekkee ne kilifa da nga ñëw nga bëgg am crédibilité nga bëgg xeex ger nga bëgg xeex lépp luy sàcc lépp luy njuuj njaaj yow yaa war a nekk royukaay yéen waa Y'en waaye on a un faut, matérialiste. On a vu un qui épicurien, un dilettante, quelqu'un qui en un jouisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui se préoccupe trop, n'est-ce pas, des euh, plaisirs de ce bas monde. Parce qu'est-ce qu'on a vu Avant d'entrer dans la voiture, il faisait des commentaires sur la maison, disant que cette maison-là Wow quelle belle maison une maison à l'européenne après ça on a vu qu'il faut faire des commentaires sur un téléphone Motorola dont il dit que il vient dans une boîte une grosse boîte que c'est un téléphone qu'on ne peut pas mettre sous écoute n'est-ce pas qu'il faut aussi avait par déverlu une montre une montre que son ami voulait. N'est-ce pas Donc c'est un kilifa qui, euh, qui n'a pas vraiment les attributs d'un activiste. Parce qu'un vrai activiste est un quelqu'un quelqu'un d'humble, quelqu'un qui aime vivre dans la sobriété, qui se contente de peu, qui est incorruptible. Waouh, gars il ma wax ci parce que yow bu fekkee da ngay woté ne da nga ñëw pour pour xex guerre pour xex lool yépp mais yow ñu wane la nga nek fi di wax kër gi dafa rafet ak kër gi dafa tubaabe ñu wane la nga gis ben téléphone lu gaaw gaaw waaji téléphone bu mu yor Motorola nga nan Motorola bi dafa baax ah ci boîte bu mu ngand lay jóge yor ben montre nan ka mu sekk mi nek ci Youssou Ndour momako jox mais vraiment kilifa la bo xam c'est un kilifa dilettante waye nak Kaliphone fumu mu moy ñun li bettu ñu ñun xamnañ né ne mar, dañuy def ay business ci suuf ay nit rek lañu comprendre nga ñun bettu ñu des fois dañuy liggéey ak régime bi bu len faté pas, Fou Malade def publicitaire gars dem len ngeen ci YouTube bi terre, ñu fay ko ci ci liñu wax suma 700000 xawma 750000 billahi Fou Malade yow nan ngay ñëwee nga ne da ngay xeex Macky Sall nga ne terre bi baaxul ba pare nga koy publicité gars yi nañu waxante dëgg comprendre nga ñu ngi leen doon wax waxu Oxfam parce que kii nee na Californie nee na yéen ñu ngi leen di tudd ci affaire Oxfam ñu lay jiin dëmm ngay soccoo yeelu liir ngay soccoo yaxu liir moom loolu la wax comprendre nga mais nag mais nag ñun est-ce que lii rek mën nañu wax ne kilifa day trafiqué visa pour man trafiqué le visa parce que moi, li li vidéo bi woné n'est rien d'autre qu'un intermédiaire il n'est rien d'autre qu'une personne influente qui a beaucoup un riche carnet d'adresses qui a beaucoup de connexions qui utilise ses connexions pour aider des gens parce que le gars il a un fils malade n'est-ce pas On lui a arraché une dent d'une manière euh, pas professionnelle. Donc, on peut donner, on peut accorder des circonstances atténuantes à Tilifo qui veut aider un ami, n'est-ce pas, dont le fils euh, euh, souffre à voyager en France. Et puis, ça, c'est pas le trafic de visa. Le trafic, de visa, le trafic de visa. Le trafic de visa, moi, comme nous, Kilifa, chat.

waaw mais loolu yëpp du ay preuve loolu yëpp du ay preuve preuve moo doon bu doon kilifa dafa am dafa xam consul bi mais kilifa moom ci boppam sax waa ji moo ko ci dugal moo ne ko xaalis bi pour yow la this guy was asking leading questions you know in order to um, um, get um, kilifa to do something illegal le gars là il posait des questions pièges n'est-ce pas celui qui disait à Kilifo, oh oui, le consul c'est ton ami. Il lui disait, oui, peut-être qu'il va nous donner un an. Mais Kilifo n'a jamais dit que le consul, le consul était son ami. La preuve, Kilifo a appelé un certain Amadou pour obtenir le, le téléphone du consul. Donc, il ne connaît pas le consul. comprends-tu Légui, Aglan, Wadi, il faut qu'on pose des questions. Il faut qu'on Google, il faut qu'on dise, il faut qu'on dise, il faut qu'on passé

lu mu tuddati kilifa lan euh, filmer ndax yow 3 euh, millions kan mo koy jox nit té amulo koy le gars il travaille pour qui kan mo am intérêt kilifa ñu japp ko mais gouvernement bi la ñan la maître Diouf lay troisième mandat du am est-ce que amay te kilifa ñep xam ne c'est un élément clé dafa bokku ci ñu gëna a sonnal Macky Sall kon buñ ko neutraliser lolu victoire la ci Macky Sall té nak dañu waxante deug Californie waxna deug fofu kilifa fi mu nekk jaratoo dara waaw kilifa jaroto dara ndax am amutulo ben crédibilité non ñun gëm nañ la gëm nañ la ba légui dañ la soxla ci xex bi parce que man boma né choisir entre kilifa ak Macky Sall kan la choisir kilifa la choisir waaw waaw ndax lu bon bon gis nañ ko mu génn ñu jàpp ko temps yi nii rek mu ngi xeexal Sénégal mais nag mais nag Sénégal moo metti gars yi activisme ñi ko mën a dund dëgg dëgg dëgg bëriwul waaw ñu mën a dund activisme comme ay Thomas Sankara ñoo nga xam ne bëgguñu luxe mais sama gars yi dañoo bëgg luxe dañoo bëgg lu neex di dawal ay 4x4 yu xam nga am si immeuble yi comme ñëpp loolu mooy problème bi mais loolu c'est pas n'est-ce pas euh,

dégg naa ko ci fin bi muy làkk couleur. est-ce que mbokk Macky Sall la xamuñu en tout cas mi ngi doon làkk tukkuleur bëgguñu dugg ci ay affaire indi parce que nee nañu ñaan yi nee nañu ba na ay ans mais problème bi rek mooy xam nga euh, vraiment complot baaxul complot Sarr moo taaloon dëkk bi tey ngeen ñëwaat dugg ci complot nag kilifa yaa def ndax mënoo way saay saay saay saay bu réere saay saay nga bu pataa bu ngande saay saay nga bu réere ndeysaan bu duufa duuf saay saay nga yow yaa way ko Macky saay saay nga bu réere saay saay nga bu mag a mag saay saay nga bu pataa bu bu pataa bu ngande saay saay nga bu duufa duuf waaye kilifa saay saay nga bu mag a mag saay saay nga bu rëy rëy saay saay nga bu pataa bu ngande saay saay nga kilifa saay saay nga bu mag saay saay nga bu rëy saay saay nga ma lii de doy na waar doy na waar doy na waar sama abonné Reine Noire Reine Noire Reine Noire moo ne ma Mister demal vaar doy na waar kilifa la ñu gis ndeysaan một đùng cái chữ ô tô ấy hoài đùng cái chữ ô tô ấy hoài ăn kê xì đây sản qua million đây sản như vise cô ấy hoài visione ăn kê xì dài dài lơ bu maga mặc dài dài lơ bu rê rê dài dài lơ maga mặc dài dài bu pata bu ngăn đệ dài dài bu du phu du sai sai lơ bu patapouf saay saay nga kilifa saay saay nga Macky saay saay la waaye kilifa saay saay la kilifa saay saay la bu mag a saay saay la lii de doy na waar doy na waar daf may nduroog kompolo aji saar aji saar aji saar kilifa yaa na maar doy na waar doy na waar ba duñu la wax au revoir y'en a marre kilifa y'en a marre rëbës nga bu mag a mag nga bu rëy rëy saay saay nga bu rëy rëy saay saay nga bu pataa ngande saay saay nga bu duufa duuf ça voilà gars <laughs> pour mais on est de tout cœur avec euh, kilifa gars yi nous prouver dara kilifa pour nous jàppoon ko il faut que buñ ko enregistré consul bi wala ak Jérémy bobu muy wax wala la preuve waji ci fin bi daf ko envoyé audio mënul sax jot kilifa kilifa daf mel daf ko triandé ko ba nga bi